Abdoulaye Boy Diop ak ki nga xamante ne bii mooy xeeru ngor Ama Events Boubacar Niang moo ko jiite tey jii di dimanche le 11 juillet 2021 Boubacar Niang moo ñu fi woo ñoom ñaar ña ngay lewaatoo lewaatoo ba tiit na diggante Boy Diop ak xeeru ngor Boy Diop moo nu woon gannaaw. ñoo tolloo taxawaay ñoo nuroo fi Boy Diop ak Xeeru Ngor ay espoir lamb lañu nag ñoom ñaar ñëpp ay victoire ñoom ñaar ñëpp Booy Diop ku sam xel dem ci dee ba ngay dund ak ngay dee lépp sam xel dem ci dee waaw waaw tey géwél baay animation ci làmb la bokk arbitre ba sub la waat na ma samba borom SBT Média diggante Boy Diop ak Xeeru Ngor attention hey waaw waaw Xeeru Ngor door na mais dalul Xeeru Ngor teere yam takko takko mel ne ma ngay lang Boy Diop daan na Xeeru Ngor Xeeru Ngor jombi na waaw waaw Boy Diop daan na Xeeru Ngor waaw waaw ko daan na na ko nee na jógal may sigil wala borom daal man may sigil di biir géej da ma sigil boo daan woon ñu amee ma ndeyam boo daan woon ñu amee ma mais da ngaa sigil yaa ma tax may reyante fu ne yaa tax may reyante fu ne yaa ma ko jaral moo tax yaa ma tax may reyante tey sama bëggan ci laay Thank you.

avant tout. waaw maa ngi sant ku nekk mais cinq huitième combat. ñaata victoire. mais cinq victoire. ah trois défaites. tey laajal ku la neex. di ñaan di ñaan di ñaan gars yi. ay ñoom Agogo. maa ngi ñaan ñoom ñoom Agogo. ñoom Boy Djiga. Ndongo Lo Ndongo Lo. na leen yàlla defal di joxe seen yóbbu di gërëm Assane Diop di gërëm Birame Ndiaye bu baax di ko ñaanal di gërëm Zé premier général di gërëm waaw seen supporter loolu lañ dégg di la wax ñu ñëw jàppale ñu rek di la fàngal xam nga ñu jàppale man Baye Fall la sama baay dara nekku si ñëpp yàlla na nga wax Boo jëm laa boo jëm. Li ma ñaar jërëjëf jërëjëf